tey ñi ñëw fii pour inaugurer teen bi teen moom yàgg na yàgg na lool sax defe naa ki ko financé moom it boobu ba léegi mu ngi doon xaar pour ñu andil ko retour woon ko ne mbir mi pare na xëy na nit su nekkul ci terrain bi di comprendre exactement réalité bi fi nekk liggéey bi euh, métti yombul woon daal li nekk ci suuf nag yàlla moo ko xam dañuy dañuy sabablu rek yàlla moom mooy yombal teen bi ki ko fi financé euh, benn jàmm yàlla boo xam daf ko def fii la daf ko def ngir euh, mbokkam mi nga xam ne génn àdduna xam ne nit ñi fekk ñi ngi koy jëriñoo rek moom ay tuyaaba day jëm ci ki nga xam ne moo taxoon ñu def ko fii kon lu mel noonu moo taxoon mu andi ko fii ci dëkk bi. ku gis jamono ji mu def ni yàlla ji ni muy tawee ni wax dëgg yàlla métti na trop waaye loolu yëpp xéwal suñu borom la ñu ngi sant yàlla di leen sant yéen ñii di sant waa ji nga xamante ne bii tamit moo financé projet bi. di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla it mbokkam mi nga xamante ne bii moo tax muy def lii nekk ci àllaaxira di ñaan yàlla suñu borom defal ko njéggal maye ko aljanna bi gën a kowe ci aljanna yi yàlla wàcce yërmande ci moom yaatal bàmmeelam di sant nag bu baax a baax a baax di am kontante ak mbégte ci lii nga xam ne moom lañu ko yàlla defal nii muy teen bi nga xam ne xéewal la ñun ñi gën a itteewoo teen ci dëkk ci ci ci àdduna bi ñun ñun ci lañ bokk parce que boo xoolee suñ teen bale nekk fële ne 1960 lañ ko gas beneen teen bu mag bale ne ñu ngi ki ko gas mu ngi gaañu 1922 kon ñun xamuñ xamuñ ban at la ko gas kon yaakaar naa ne depuis boobu ba léegi teen amatu fi kon bu ñu ñëwee ba 2021 wax dëgg yàlla benn jaamu yàlla ñëw indi ñu euh, teen dañuy sant yàlla di ko gërëm waaw ndox mi euh, li ñu mën a wax mooy suñu fii moo xaw a jafee am ndox mu neex dëgg dëgg dëgg comme ndox mu neex bi ñuy taamu fii moo ñu xaw a am jafe mais nag euh, bi mm, gën na ndox mën nañ ko naan wax dëgg yàlla mën nañu ko naan parce que ñun ñu ngi naan lu gën a naqari lii mooy robinet te robinet xam nañ ne amul amul amul benn sentiment ci yaram kon nag teen ak nu mu mën demel bu ñu ko amee moo ñu gënal fukki yoon ak juróom loolu wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax gërëm nañ ci waaw wax dëgg yàlla. taxawaay bii ngeen taxaw ci ñu rafet na lool teen bii ngeen bii ñaan teen bii ngeen ñu ko may booba ndox jafe na fi lool chaque jour bu ñu xëyee sare dañu takk sare di ut ndox ndox robinet ki ko liggéey yal yàlla barkeel yaara bi na ko yàlla may yokk yaara bi mbokkam mi nga xam ne moo la tudde bi di ko ñaan ci yàlla yàlla teen bi ni ñu koy naan di ko jëriñoo di ci kontaan yàlla na yàlla kontaan ko mbiram yaara bi jégal ko bakkaar sayrel baat ñaara bi allahumma salli ala sayyidina kontaan nañu bu baax lu tax mu defar teen bi yàlla na ko yàlla fay lu tax mu ko yàlla na ko yàlla jub di ko sant wa dëgg amoon nañ coono bu mag a mag a mag waaye nag dindi na coono bi ndax tumuranke woon nañ fii tungu ranke ndox mo xam ne yàlla rek a ko xam kon daal coono yi <laughs> bu baax moom wàññeeku na wax ndax fi mu toll nii saa bu ñu bëggee am ndox rek dañuy ñëw rek daagu duy teen bi moom daagu duy la waaw sant nañ yàlla bu baax a baax yal na ko yàlla dimbale yal na ko yàlla fay. Euh, chers donateurs, alhamdulillah rabbil alamin euh, nous sommes dans le village de Mbane Kerdiagan dans la région de Kaolack pour procéder à l'inauguration officielle de ce puits euh, qui a duré assez longtemps, donc au, au moins 8, 8, 8 mois. Mais alhamdulillah les travaux furent difficiles et comme vous pouvez le voir tout autour du puits, et euh, il y, a des sols rocheux. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu toucher de l'eau après huit mois de travaux laborieux. Euh, l'eau, alhamdulillah, est, abondante et bonne et les villageois sont très très contents de ce puits. Euh, nous profitons, Inch'Allah, de cette occasion pour demander le pardon euh, à la défunte qui est partie, Meltem Erkan Hatoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans la paradis Firdaus, qu'Allah l'accueille dans sa miséricorde, accompagné des prophètes, des vertueux et des martyrs qu'Allah subhanahu fasse que ce puits soit une sadaqatul jariya pour cette, cette, personne et que tout ce qui sera puisé dans ce puits-là sera une source de hasanat pour cette personne. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa salam alaykum wa barakatuh. la la